xew bàjjan bi suba la de te nag ah bëgg naa nga def ci dara de bàjjanay bàyyi nag te nag euh, dañoo jaar fu ne maag moom bëgg la loolu yamawul loola kenn nag ci àddina lu mu ñàkk yàqu ko xañ bëggoon nag loo mën ak loo mënul lépp nga def ko ci mooy dëgg sax nag mu nga wax rek bàjjanay bàyyi mhm. bien vrai que may nañ ko deux millions cinq cent tegi sa ba tege ko nee su su su su marché neexoon sax yaa war a takk fii nag bi bâche baas bi toggal ko ay añam bàyyi ko mu dem yoonam mais comme que nag yàlla moom ah lu yàlla xam doy la yëkkati sa benn somme bu baax rek eh, jàppale ko ci xew bi. mooy dëgg de mooy dëgg nag ndax sa sag la sa sagu yaay dégg naa dëgg de. yéen de pas conséquente de. Hmm. yéen daal ay waxu xew ngeen di wax. sama bàjjan moom dëgg la bàjjan lay bàyyi benn bàjjan laa bàjjan mosuma ko seetaan mais xew mi ngeen bëgg tey ku ci am natt tege ko ci ku ci amul dara lebb ko ku ci yóbbu yëre ci tëyër leb ko war ko koo fay man déjà yéen may jëliloo xaalis war ko ma war ma ko cee def loo ak kër gi problème yi fi ne man ci feebar bi ma jóge hmm? dépense kër gi wàccagul yooyu yëpp yéen koy xalaat mais li xew la te benn bés bii rek la bàjjen am. mais ki ne xew la mais nag ñu def ko ci mu doon loo xamante ne lu yam lay doon buñ ci jógee kenn ku nekk mën na. waaw ah, dañoo ne la nga jaay sa bopp joxe dañoo ne la nga yëkkati dara rek rafetal. xam naa leen bés bi xam naa leen. Ah, tax ngeen réunion ma nii xam naa leen parce que mënoon ngeen ko wax nii mu da ngeen ma réunion ak sama yaay te yow moom lii sa liggéey la. sama liggéey te te kone yow yaa dem ci moom maa sama yaay ñooy otesu te jënduñu ay mètre 1000 ah, francs jënduñu mètre 2000 francs dañuy sàjj maag sa yaay ñooy oto ci kër gi kër gi wàcc. fii xanaa fête de l'indépendance ngeen jëm bay Masareku. <laughs> lii moo raw fête de l'indépendance ñun sa bàjjan la ñu may benn bàjjan bii nga am. mooy dëgg dañuy oto su def ba mu très bien. baax de sama def affaire très bien yow lii moo tax. ma eh, eh, sama jàmm ku ñu def day ko ay silam. maa la ko wax sa yaay dama koy ah, dund def yëf bu ñu waxee nga naan ay kuy dund na def ko yëf kuy dund mère fi ñu toll lijjantil màkk bi nga war a dem mais ay ay ay silak ay make up ak ay yooyu ma mer loolu bàyyi la affaire yooyu. ban weer la nekk makka moom du jonge bu baax. lan sa yaa sa yoon nekku ci. yaa noonu na la expliqué man d' accord ma ci ay pose ay silak ay xef d' accord ma ci yooyu de. Ah, waaw kii yaay jëkkëram wala la yow doom kese nga lu sa yoon. Eh, du pose xef ci kër gi. day pose xef force maa ko yow ñu posé ko xef mënoo dara. ba pare nañ daal xam nga pose am na pose waaye nañ otesu. bi ci des pare góore liste bi dafa gudd. Eh, liste li ma war man li ma war xam nga nag du ma ko wax sa kanamu yaay mais suñ duggee ci biir dama koy jox ndànk. Ah, léegi daal je suis exclue non non mais xam nga sama yaay dama ko warus wax dëgg yàlla mais am na fu ma ko doon jaan yi daf ma ko jox mais yaa ngi toog. yow zéro yow vergogne zéro. zéro vergogne. moom bu dafa am beneen sama yaay toog fi nga naan ay bu ñu duggee ci biir te bu ñu duggee ci biir yow leer na la ne. dañuy aay si jaaree bi aay dañuy aay dong nag yow nekkoo foofu ñuy aay yaay dañuy aay dong dañu eh, fa de. Eh, eh. man daal sama yoon génne ngeen ma ci bokkatuma xaaral ma féete ni jàpp sama ñàmbur. <laughs> est-ce que doo jóg sax yaay tamit hmm. wala nga toog rek. non bàyyi ma jóg dem parce <laughs> naa. na jàpp ci yow na jàpp ci yow. parce que ce de 30 ans yi pour lan la. dama jox loo ma jox. lan nga bi. yow dafa la mais ma sama sama jaam sa yaay gën xam dañuy sëy lan la. mais sëy bi ci biir néeg nii dama koy bañ. da ngay bañ lan. lii di sa yaay xanaa ma su ma daa am lu may kii rek waaye kon. a xam fii nii. eh ah, yow bàyyi bu ñu nga naan fii nii nii yow ku yow tu es compliqué ah yow. yow sama yëf nga la war a fii tegal la fii gënaa sang la fi ba nga seet dugalaat la <laughs> loolu du dara sama bébé nga dama laa àttanu rek waaye kon dama lay <laughs> yow di yow jeexal nga ma. ah gars jox ma xaalis. tàmm nga booy laaj xaalis lu ne ngay dugg. lu ne ngay xam nga bëccëg lañ ne bu guddee di ma ko jox te duma la ko laaj. li ma mën rek laa joxe man li ma mën rek laa joxe. yow sax xam naa système bi may utiliser ak yow xaalis bi laa dul dencati ci kër gi Moussa boo kuyee man la lii moo fi nekk am ak loo mënti def lii moo fi nekk sonn. xam nga man xew bàjjen bii raxasu naa ci ba set wecc wecc wecc sama yónneekatu ci hmm. yaa ngi dégg mën ma nee nga man nag ma dugg ci xew mi waaye man xew mi bugguma ci woon dara te bàjjana nga ne ànd ak Ndeye Ndiaye dem marché. ma ne damaa yéemu Xadi Baaba. waxatuma la loolu ma nga ko yóbbu ca salon de beauté ba te yow yaa ne woon da nga jël lépp amee. léegi nag mi ngi noon nag. bàjjen loolu laa waxante woon ak moom man maa ko waroon a yóbbu moom mu defari boppam waroon koo yóbbu mu dem ñawlu ji ndabi jënd naa ko ba pare mais man comprendre ma lépp nag Ndeye Ndiaye la Ndeye Ndiaye seytaane fi mis tënna na riipa na Ndeye Ndiaye classé gi ma ko classé moo ko naqari boo tax Ndeye Ndiaye tas kër gi aki moo yóbbu ko te it ba génnewu ci loxoom. ba génnewu ci loxoom. du moo ko jox xaalis moo ko jox xaalis bu weex tàll pour mu ànd ak bàjjen dem di jaay seytaane ah yaa ngi nii nag nee nga Ndeye pare woo ci moom bu ñëwee na la fexe ba lonkaat la àndaat ak yow comme nag yow moom dangaa mel ni sikkim rek foo gëstu rek ka lay yóbbu. yow demal yow yabaate woo yow man maa ne la bàyyi ma Ndeye Ndiaye. waaw baax na mi ngi noonu man nag yow Ndeye ci digg ëtt bi man su ma àndaatee ak Ndeye Ndiaye duñu ne eh, dal. ah Ndeye Ndiaye man maa ko bax damaa ba Ndeye Ndiaye man. man fi mu toll nii xew mi engagé naa ba ne maa jël beñe yeeg bisaab bi ak jinjeer bi toq beñe laay defar ku am baax na ku amul sama yoon nekku ci. déedéet loolu sunu gàcce la ndax nit ñi bu ñu ñëwee ñun lañ fiy fekk te ñun ñoo fiy sëy la nga engagé woon continué ko defaral beñe yi nga waxoon bul ci wàññi dara jus yi na lépp mat parce que gan yi dañoo amaale ñun suñuy gan. man nag li ma warloo bàjjen dinaa ko def tere terewul bu xew bi paasee dinaa xam sama bopp lii lépp xelu nday njaay la ndax bu dee bàjjen kese man xam naa bàjjen xam naa ko bu baax nday njaay daf koo teg kel yow xanaa yow ay waay nday njaay nday njaay gone gu ñu sol yeelu mag la yow xamoo nday njaay yow wala xamoo kooku yow gone googu xam yow yaa ma gën a xam gone googu ndax yow gone gi ba mu duggee ci biir kër gi boobu yaa ngi nekk sama xarit yow yaa ma xamal kuy nday njaay kon yow waru laa jaaxal xam nga lan la man xew mi engagé tuma comme yow da ngaa ñeme engagé bëgg doon maire Teresa ci xew mi yaa xam man damay reculer doo reculer gis nga toq beñe laay defar doo ko defar pare naa ci doo ko defar man say gan bu ñu ñëwee samay gan sama yoon ci man mm. invité wu ma kenn woowu ma kenn xewam la na jël xewam sama yónneeku ci nekkal nit nekkal nit te nga muus nekkal nit te nga muus xam nga kii moom jaay nañu jukkooy mag jël lépp aaki moo ko léegi boo toogee jàpp sa croiser les bras nit ñi bu ñu nee salaamaaleykum dugg ci biir kër gi gan yi ñëw duñ ne ñun ñoo sikk duñ ne ñun ñoo bon ñun ñoo doy waar duñ ne dañoo seetaan bàjjen loolu loolu ñu bëggal moo tax mu jël lépp gaawantu profité aaki moo ko man de duma ma ci raxas sama loxo dinaa ci taq rip rip te ni ma ciy taqee noonu nga ciy taqee rip li ma warloog bàjjen amul lenn lu may reculer dama koy dem damay dem jusqu'au bout yow nag dangay dangay dem ba mu jeex tàkk saytaane ba bëgg a dee xale bu ndaw di manipuler ay nit rek xale bu ndaw manipule ma manipuler sën manipule bu manipule ba mu ñàkk fayda mi nga xamante ni dafa ragal Ndeye Ndiaye man ba damaa yaakaar ne Ndeye Ndiaye dafa am boog loo xam ne ñun amuñu ko man daal lii foog ma vérifier ko bu fekkee jigéen ñëpp ñoo yem ni ñu mel. ah Ndeye am na lu mu rax. <laughs> Ndeye am na lu mu rax. ko si tey la tay de waaye suba ah, la nettali ba wéññi ñu commencé ko sa jongo ma nii. tamit nag. ah du ci pot di ci ndaali la. dëgg du neex. macha allah ase la ngi de. borom make bi baaxi borom coiffure yi baaxi. nee naa lu mu deful baaxul tey de ni nga mel ni endo xam naa ne moom binom bu juumee ba ñëw fi tey dina ni waa man ki ma labat moo ne nii. da lay changé da lay transformé. ni endo ñaaw. déggali dawal ko kii après grain de beauté. léegi loolu. mooy capp daw loolu laa benn capp daaw déggali yow. Ah. mën naa bu discret. xoolee sa kanam la day xam lan la siy def yow la rek toog. waaw ah, lu ma def li dama taxaw sa cër rek dama ne la toogal rek mu defaral la bu amoo looy commandé yow te bis bii moom dama ko jënd fay ko prix. yow doo ci ŋang doo ci sex doo ci yàppi dimbali ma rek nag dox nànk wax nànk bàjjan bu ma indil defet kay day daal yi ma sol gudd na de waaw da ngay loolu du yaa da ngay dugg rek boo ñëwee rek dama lay teg ci chaise nga toog nit ñi fi mu toll nii doo dox di nuyu kenn ñoom ñoo lay fekk si di la nuyu. moo gën de loolu day sonal li sax. day daanu wóoru tànk ma ak moom du sol talon moo tax. nu mu tuddati kii ah, Aïcha. mooy mooy jabar Colonel. Colonel. waaw ah. waaw daf ma joxoon cheveux. moom nga teg ne. déedéet bii teg bii kii waguma ko boobu defaguma ko. Ah. boobu dama ah def nag de. ceet li yow liy takk jàkkam doo def sa cheveux nag toog. tey bàyyi ma rek bu ma stressé man damay stressé xaalis. waaw bi noonu moom la mu wax. ah lu bi nam di wax la du kontaan. sa njëkk bi waa kii kii yow. dina ñëw sama njëkk bi Ndeye sa ah. premier njëkk téléphone sama premier te français lay français. dina fu mu xamee ngeen wala ni may nekk. xaw ma ko. tubaab ndaw si daal wax na ba làkk ba pare ma ne ko tenk yi wari mat. war nga koo wax loolu nag. loolu lan la wax du rëy jooju. day wax ju dafa rëy. yow kii wax nga ko wax ju rëy. bàjjan boo wëguma ma nag xam nga lii moo doon moo taxoon man la jëlal ay cours gis nga man maa ngi ni ba ma duggee école au Sénégal ba tey sama naqar daf maa dëddu dëdduwuma léegi nii danga ma gis ma am benn problème mm. ah gënumaa amélioré sama sama kii mhm. léegi nag yow duggal foofu nga jàngi école au Sénégal li ci gën a neex mooy mën nga toog fi nga toog yaa ngi may dégg téye sa téléphone di jàng kenn du la xamal dara voilà léegi dama la expliqué leen waaw Clé d'or mhm. ay sa jabaram waaw nee ma dinaa ma gëndal téléphone may dugg ci cours boobu ngay wax ni waa école au Sénégal da nga koy téléchargé rek ah dañ koy boo téléchargé da ngay dugg rek di jàng doo am benn problème xam nga lu tax ñu def noonu parce que euh, di xale ñun jigéen ñi. Mhm. mën nañoo comme bu ñuy gis mbaax am na ñoo xam ne day metti ci ñoom ba du ñu mën a jug di teg tànk di dem. école waaw yoon téléphone boobu. non non déglu la ma lay wax danga may ubbi sa nopp déglu ma yaa ngi may dégg moo tax nag ñu bañ a sonal kenn bu defee yow boo demee boo tollee sa période war a jàngi te mënoo jàngi mën nga tëdd sa néeg téye sa téléphone. cours bi du la du la du la du du la raté doo ko raté. du dégg moo tax ñu defal lii dafa day arrangé a yii Aïcha laay woo mu gën ma téléphone téléphone bu baax laa bëgg. di ci allah xam naa bu ko xàkkee la door moom dina ma wutal moom. macha allah. waaw ndey doo noppi dama egg sama maquillage bi. waaw déedéet dafa am ku fi unité ranga faa ma wax la ko. Bamba Jower Xaadim l'international Xaadim Jower. indi na fi ay canette yëpp maa ko recevoir nee na bés bii ndax man dama ni rakkam nee na ma doy da ngay sey ci kër gi te teraanga dalaa war xam naa ne sa jëkkër loxoom jotul ginnaawam nday sa ba nee na nag indi na ay canette yëpp a ngi ma teg fële xam naa ba pare nga ñëw xool ko xaadim joer moo def loolu moo def loolu xaadim joer mu baax mi xaadim dafa baax yow na ka baax mhm. kenn du moom mhm. yow daa astel defaral ma ko ba mu baax doo ko tegal lanti ay bàjjante nan nga biir toj yan bàjjen bee lii. waa kër gi de ñoom ñëpp a ngi lem ku ne dugg fu ne waaye nii soxorul nag bon. waa bis bi kenn mënu cee bañ a lii. ci gën a bon càmbar càmbar gi nag ndey nañ ko wàññi. man de waaw ma teel la pare nag. na Astel kii bu teelee pare nag day daa war a toog ci digg lal bi. Mhm. xam nga sëy yu bari mooy indi problème yooyu. Mhm. gis nga di xale buñ lay takk surtout yow mi jànk nga ndax foofu mën nañ fa def lu ne. takke fa sa jëkkër xala yow mii mën na xam nga rek yaa ma gën a xam mhm. toogal ci digg lal bi nga muuru jël sa kurus di ñaan ci yàlla lépp li nga bëgg sa sëy bi fasaale ko mhm. yàlla may leen njaboot gu barke ba man mi sama am ci turundu ah wan ma see mën am tak wax dama leen may courage rek amul courage asa dina defar bu mu ah, la def ci biir xanaa déedéet may assister foo ne yow nee naa maa ngi yow nii. nga jëm jël bale gi bale kër gi. baax na am na temps. grand frère yow lan moo tax ku la wala nga def ci biir. non non dafa am lu ma rek. non bàyyi sa bouquin bi man attends yow lañ bàyyi la ah, man kenn bàyyi lu ma dama doon dem sama yoon yaa xam nooy def. bouquin bi aussi ci la bokk ah. waaw non waaye bi ci la ah, ah, mariage baa ngi fi mais héritage baa ngi fi aussi. il faut mariage bi la ñu wax. Ah, d'accord comprendre ne ma oh, li ba ne léegi li waral waxtaan wi yëpp lenn dong la. ok dama lay yëpp encore une fois. Hmm. def nga ko la fa passé bi ñuy ñaanal bo dem nga fa ñu joxe paas nga naj paas yeeg affaire yu demee noonu indi fa ñu jox la kaddu nga déraper def lu la neex cette buñ la ni yow yaay baay bi yow la ñu bàyyile di la ni kaddu gaa ngi ngay dugg ci problème yi kër gi wala ngay dugg ci problème yi baax wala ngay wax yeneen affaire yi héritage takk gi la yow lañ bàyyile yaay maye loolu rek laa lay yebe waaw problème yi bàyyile bi bëy baay bi moom kooku rek leen naku ko Ibrahima Diama c'est vrai waaw waaw daa ko cent cinquante xam nga li ma nee na bu muy tudd dina def deux cent cinquante mille waaw waaw ah, mais nee na ko am lu mu war a wax ak yow ma affaire yu demee noonu daal ma ne ko waaw yaay ñaan. non non ah. amul non amul non amul non. comprendre deux cent cinquante mille la. amul ah. dara lu may wax ak moom. mais bul fàtte dix pour cent bàyyi laay. bul fàtte dix pour cent yi loolu yow tamit doo bàyyi mu sedd yow it. waaw réglé nañ ko ba pare. waaw léegi yow bu ñëwee dinañ toog yow mi bàyyi yaay may yaa la nga xam nga ni ñuy maye. may may lan. yaay may yaay may sa sa rak. non mais nag déedéet ma may nag imaam bi réglé. mais imaam bi réglé lan. ah kuy maye nga ne man maay maye. yow yaay may yow lañ bàyyi demee da ngeen xul wala ala léegi kon xam nga la comme yow jàngoo loolu xamoo nu ñuy may affaire bi yokk ko quinze pour cent man ma gérer la affaire bi. yow yow mën yow. kan yow. yow ba man da lay ba say juddoo ko mon petit frère. Ah, léegi nga ne lan. non yow jàngoo ko. yabal quinze pour cent man ma gérer ko à ta place. mu def affaire gérer ko mayel ba ba affaire baa ngi affaire baa ngi bëgg a métti nag si man. waaw mënu ma la jox di pour cent. si ci ci bëyu baay bi si deux cent cinquante mille nga ñëw yokkaat ci ni léegi mënuma xutba yaay xutba jox la quinze pour cent léegi xaalis bi lan ci am léegi. xam nga lu tax muy metti ah lu tax muy metti waaw lu tax muy metti ah dañoo teg euh, école coranique say bouquin. waaw man yàlla dimbalil ma fornaatu tubaab bi. dem jàngi alxuraan ba xam sama diine tuuti. ma dama koy am. pay googu dama koy am la ma daj daar daara ji. léegi pour mu xool léegi bàyyil 15 pour cent. wala non non ko. pour ñu régler ah, imam mu ñaan. imam mais imam dañuy pare wax parce que dafa am mooy yoo xam ne ñi ñu bàyyilee ñoo koy wax mu soog a am droit maye imam sax ku ko joxul du maye. loolu yow affaire bi dafa complexe de. imam lan lañ ko jox. non ku ko joxul faveur bi wax ko par exemple man li ma war a wax. waaw ngi dégg léegi imam li mu li mu war a wax. waaw léegi wax ma ko ma wax ko léegi. ma wax ko. mais wax ma ko léegi ma tari ko. mais attends xoolal eh eh. eh de. man dama gaaw këru de. rapidement ma këru ko nga sa bouquin bay dama koy bind. lii Coran bi c'est pas du du du kii de du nii non yombewul maye de. du gratuit. léegi encore une fois léegi xam nga luy wax ci. waaw ah. Hmm. léegi nañ mu ñaan comme ça ma jox ko 2000 mu dem. nga jox ko imam yow perte nga lépp de dem na ndox ma ndox ma imam 2000 imam 2000 laa ko jox du ma ko jox leneen de Allahu akbar lan lu laa jox imam yow xam naa ne xam nga lu nar am ñu toog ba ci bis bi ñu rocc baay bi jox ko keneen ka moo koy rocci parce que xamoo li ñuy wax lan mooy problème bi da ngaa bëgg a désister wala non ma si mooy mënoo ko bàyyil ma gérer ko quinze francs quinze yi léegi bàyyi naa quinze yi comme deux cent cinquante mille la waaw bàyyi je prends les cent mille jox la cent cinquante mille yi ma gérer eh, ba mënoo jël nag cent mille francs non mënut a nekk c'est pas possible mais yow jàngoo alxuraan bàyyil ma ko mais mais nga ne est-ce nga benn affaire deux cent cinquante mille six mois la xamoo loolu six mois laa ciy dund. waa man ñaata année laa def pour jàngal lool pour jàngal bu jàng la ak pour jàng la ñuy maye. mai ba est-ce que réellement yow jàng nga yow. muy yow xam mooy parce que mosoo dajeeg man ci jàkka ci mais mosoo dem jàkka. allahu akbar dem jàkka. man xam naa la ñaar yoon nga dem jàkka benn bi mooy mariage bu bi mu desee deux semaines nga dem jàkka ja ak mariage bi gis naa la bërki démb nga sol sa grand boobu naan la ngay dem jàkka ja boo laajee <laughs> mariage ba mariage ngay dem jàkka ja oustaz Diom oustaz oustaz Ahmed Diallo oustaz Guèye bi lay xamee nañ ma ci jàkka ji te ñooñu ñëpp imam lañ dama ni yow daal gis nga la ma defoon ci daara ji di durumlu moom la ma yàlla di fay nii rek bàyyil ma amul problème bàyyil ma géré ko. léegi jox naa quatre-vingt mille eh, tamit. noo teg ci quinze mille grand frère. noo teg ci quinze mille. waaye xoolal nag yow nag xoolal yow ah. neexoo mocc nag yow aussi ah. non ay eh, alxuraan yow mu ne c'est pas facile. yow jàmm nag xoolal nit su amee jàmm. indee jàmm. non defal cent ànd ak moom si. non defal cent laa mu ne. def ko quatre-vingt-cinq mille mu jeex tàkk moom ma dem sama. yow koy looy këccal ay gis nga. alxuraan bëggul ku koy manqué rek di ko dog na mat cent mille alxuraan bëggul loolu. mais néeg nga ah. non alxuraan bëggul loolu. non grand frère néeg nga. alxuraan bëggul loolu c'est le Coran. gis nga yow yaa raw tafangom billahi yaa raw tafangom yow. yaa ngi yaxati ku bon kooku nga may. et eh, sama mariage bu mu fi ñëw. Ah, mariage bi sama mariage la. ah, ah. bu mu ko invité. waaw ah, loolu loolu après la. non lay wax rek loolu après léegi tafaango bu mu ñëw si mariage bi. yow bu ñu toogee ma ne la kii bàyyam la ko maay grand frère jox na ma kàddu yi ñu jox lépp xut bu ko yëkkati sa xaalis jox la léegi. waaw il faut ñu fa benn 15000 ma jënd ci tàngal jënd ci guro ñaari sa seen ndox au moins paa bi ñuy fekk fi dara ndax ñee ku leen di xaar ñuy indaale seen goro day yeex. 15000 mais 15000 dafa bari. bari lan waaye dafa bari waaye bàyyi tamit waaye 15000 ay tàngal ak yooyu pour lan. yoo xam nga li war a daje. ci nit lan. xam nga li war a daj fii bu fi woo mbooloo kon ma woo jaru ko waaw mais yow yow yow man maay woote maay may waaye yow kii ñaan si kii ñaan si xam nga lu moom section eh. nee na compagnie compagnie lay avay bu mu fi indi compagnie ah loo ji man mooy ñaan jabaram personne mooy ñaan eh, jabaram bu jeex te xam nga ñoom seen classe moom classe bi nekk blende ñu ne commande ak ñooñu ñëpp ku ci nekk classe dafay coppati indi waaw d'accord mais léegi ah, waaw léegi bàyyi ma jox la cinq mille kan bàyyi ma jox la cinq mille mënu ko non cinq mille mënu ko bàyyi ma jox la cinq mille mënu ko boo amul dix mille daal ñu xool bu ñu ñëwee yow yaa tamit yow lan la bon dama nii boo mënee man xam naa la. li hmm? ñu la bàyyi ba léegi en li nga joti envoyé waxoo ko. yow ñoo li xoolal xoolal xoolal xoolal benn benn xoolal. billaahi benn dix mille bi laa fi yore. waaye léegi après dix mille xoolal dix mille francs. bii laa fi yore waaw ci ku ñu bàyyi la yow tamit waroon cent mille ko joxe. xoolal barki démb la ko suma benn copain Sakho bi ne Espagne moo ma ko yónnee. waaw barki démb douze mille la woon. deux mille yi ma dóor ko. Espagne la ne mu des dix mille. Espagne la ne waaw xam nga Sakho li mu yor jeexul. yow joxe nit sa doom yow sa sa li ñuy may joxe li nga bàyyi la. waaye déglu ma xoolal xoolal baax xoolal kii vraiment xoolal lii xoolal lii mooy suma las. billahi ah ko joxe kon naay. non su non am teel. ah non teel rek grand. yow fi mu ne nii. ay teel bi boo ci rek non. waaw teel rek teel rek wala nga wala soo yow nga wala soo yow soo yorul dix mille soo yoree benn dix mille. ku ma yore lan. yoroo benn ma lan mais lii mooy las booy tamit. waay bu dee waay las la. yow ngay yow ngay may ah joxe sa participation dinaa joxe sama participation mais après. waaw ah, mais bàyyi tamit def ci dara. waaye maa dem parce que léegi xam naa léegi mu woo ma imam. waaye baax yow baax léegi yow li lan la waaye mu ñaan mais mu ñaan ba de dóor na sama 10 000 ba kii est-ce que sax dina jënd guro kii du jënd guro du jënd tàngal je t'assure que kii dafa dóor sama xaalis mais kii na pas sérieux laaj na ma ñaata cent mille francs laa ko war a jox cent mille francs sama deux cent cinquante mille mu jëlaat dix mille da koy jëndul dara. kii je le connais billaahi kii day lekk suma xaalis mais Baye n'est pas sérieux sama grand frère dëgg la mais sérieux wul ah nii moom nii lay wootee jàmm quoi si kër gi moom su la wooyee jàmm rek c'est pour dóor la moom non kër gi billaahi kër gi non kër gi day tàkk kër gi day tàkk bombe atomique lañ fiy dóor mu tàkk ñun ñëpp ñu dem tot tot ba mais kii n'est pas sérieux tabarakallahu def nan faratas yàlla sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba noppi ci ndigalal wayjur yi mhm. tabarakallahu seede yi toog can gi teew tabarakallahu kon sey bi tàbbi na mhm. fi mu ne nii nag yaay borom kër gi mhm. ñaari ñaari way dencante yi nag li leen di dénk mooy li alquran di dénkaane wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma yàlla nee na ku góor ki moo ame li nga xamante ni bi moo di ku jigéen moo amee li nga xamante ne bii moo di mbëggeel yaakaar naa ki yërëm ak ki bëgg bu ñu bokkee benn néeg ñoom ñaar seen diggante jàmm rek a ci am sey bi yal na yàlla barkeel ko ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye bu ñu fàtte li ñu alquran digal yàlla nee na wa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha bu sey bi yëngoo nañu dajale ci famille ku góor ki ñi bëgg jàmm ñu indi ci kenn famille ku jigéen ki ñu dajale ci kenn tamit ku bëgg jàmm mm-hmm. ñu dajaloo waxtaan ci néeg ñu génn trouver li nga xamante ni bi moo di sëy bi kon sëy bi daal ñu ngi ñaan suñu borom lépp bépp sëy buñ mës a takk mu barkeel yal ci yàlla boole sëy bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee imam tabaarakallahu ñu bàyyi la kàddu gi bismillah walhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf grand sëriñ yaakaar naa islam amatina victoire parce que Seyduna Muhammad nee na yàlla li mu gën a bëgg sëy la waaye li mu gën a bañ fase la donte daganal na ko sëy nag heure bu ñu ko defee fa tabaarakallahu malakuut ca kaw asamaan ñu ngi koy célébrer di ko feete ñu bari jàpp nañ ni sëy fii rek la yem waaye boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa daal di wax ne afsun nikaax walaw bi duf in boo leen takkatee sëy na ngeen jël ndënd tëgg ko ba àdduna yépp xam ni diw ak diw maye nañ leen pour bu ko defee ñu xam ni fii alalu jàmbur la bis ni ki tey yow jëkkër ji lépp loo amati ci taar ci bànneex ci ngëneel won ko sa soxna sa soxna tamit kazalika lépp loo amati taar te muy bànneex lu mu mënti doon won ko sa jëkkër yàlla daal lenn rek la leen sant wa ashiruhunna bil maaruf nee na ngeen dëkk dëkkin bu rafet kenn ku nekk nag ak lay yàlla def sa poche alal du sëy taar du sëy lenn rek kay sëy mm-hmm. barke ak xabul yàlla ci yàlla def xabul fa tabaarakallaahu kontaan nañu trop lii la yonent bi bëgg ndax moom moo ne annikaax min sunnati fa man lam yaxmal bi sunnati fa laysa minni nee na man Seydina Muhammad nag sama devoir sama droit sama charte ci sunna mooy pour ngeen di takk képp koo xam ni nag takkoo jëfewoo sama sunna te nag wax jee ne rek ku nekkul ci àllarba yonent yàlla Muusaa dem ca dimanche Firawna kon nag nañu sensibiliser jeunesse bi comme ni yonent bi bëggee ñu takk soxna yi ndax jigéen ñaa ngi fi am pagaay célibataire yi bari nañu taxawaalu bi bari nañu yàlla na yàlla def barke ak ndam ci biir sëy bi kon nag wa ma zalika bi aziz sant yàlla bu baax alhamdulilah imaam am na loo fàtte am na loo tuddul de bay bàyyi bi waxoo ci de waaw jërëjëf kàddu moom day mat waaw kii bu ko jox kàddu kii xamul dara xut baal ci yu baay bi waa sëriñ bi wax dégg naa bu baax li nga wax waaye damay fàttaliwaat Sénégal tuuti ke ñu xam lan mooy bëyu baay xam nga alxuraan dafa yaatu 114 suuraat 6666 aya mhm. amul fenn fu yàlla tuddee ni bëyu baay yu baay du farata ah loolu du sunna yonent bi diglewu ko mhm. yàlla diglewu ko mhm. aada rek nag Seydil Hadji Malick nag daan na wax Sénégal daan fi diine yombut moo tax aada ak diine heure bu ñu bëree aada yëkkati ko ci kaw daan ko loolu nag sëriñ bi gisuñ ko ci nas te du force lenn rek lañ mën a def mooy ngeen waxtaan ba jiw ba la ko joxee baax na bu la ko joxul kazalika nga xam ne nag wax dëgg yàlla teg na ko ci sariya ndax du farat bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant mm-hmm. ndax li ñu bëggoon lépp yomb na mm-hmm. waaye ñun dañoo tàmm mm-hmm. ndax fu ñu takkee jabar fu ne vingt heures dañ koy jël si doon <laughs> ngeen tàmm waaw dégg nañ la <laughs> baax <laughs> macha allah yaa imam ñu ngi lay jaajëfal si kàddu yu rafet yi di nuyu borom kër gi di nuyu kilifa yi fi toog yëpp di nuyu tamit sama sama classe yi toog mm-hmm. si kilifa si si ndigalu kilifa armée bi yëpp mm-hmm. si ndigalu colonel Untap si moom mi ma yebal mm-hmm. ma ñëw fii damay waxee aussi tamit si kàddu amical condescendant du jaajëfal vraiment yombalal ngeen ñu ko comme ni ñu ko bëggee ñëpp xam ne ni ñun kat ñun armée amuñu temps si heure si heure la ñuy dox salaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf euh, imam na nu kontaan nañu di ñaan sëy bi rek li nga ci wax mu bokk ci sëy yi gën a barkeel ñoom ci njaboot gu barkeel yàlla laf cat euh, loolu la yàlla dogal nag kenn mënu ci dara maay magum kër gi waaye garab gi bu ma dee reen yi xob yaa ngi noonu sawet muy doom ju ma gërëm ndax bis bu ne ci ngay gërëm nit euh, di doom ju ma jàppale di taawu kër gi muy taaw bu ma njëkk a gis jàppale ma lool yërëm ma lool nanguwul sama bët xonq may gërëm yaayam moom laa njëkk a gis ci soxna di gërëm ñetti soxna yi ci des di gërëm samay euh, goro yi sëy si ci kër gi ak ñaari doom yi ma fi yàlla dénk ñoom it ñu ñu ma déggal di leen ñaanal yàlla may leen ba ñu am bis bii muy awa xati waaw euh, di gërëm ñi nga xam ni ñooy sunuy goro ñëw ñaan si waaw gërëm sama rakk ji waaw muy jàmm mi toog euh, dégg nañ ci sa biir wax nag Euh, nga ni vingt yéen ku ngeen takk da ngeen di jël yóbbu waaye bii damaa bëgg boo delloo ci kanam sa waay wooma seede yàlla ndax kii ñuy maye tey dañoo mënuloon a reporter waaye moom sax neexul waaw moo tax dañ ko bëgg a bàyyi mu dal tuuti déggante nañ téléphone sànq sa waay xam naa boobu yéen départ ngeen waaw xam naa du mën a dem tey vingt ndax yéen ko moom bu leen neexoon buñ jógee fii ngeen yóbbu waaye koy yóbbu day wér du dëgg ñu leen doon ñaan loolu rek ngeen may ñu ko waaw. imaam. Mhm. dafa am loo xam ne nag. Mhm. kii da koo bàyyi. kii kii sama mag la dëgg la. Mhm. waaye ku bon a ngi toog. ku ma soxoree ngi nii toog laa wax. coow li coow li yëpp xam nga lan la. ah bëyu baay bi dong la. bañ ko fi tuddee ba léegi nii dañ may jox cent cinquante mille lu ne duggul te dugg na ci. dem na ba naan ma sax pour ma jox ko ci dix pour cent. kii kii ni mu nee na yee mooy kilifa si kër gi gërëm na ku ne nag mujjee ma daal may cof tuuti loolu yëpp dégg naa ko waaye dafa am lu ma la doon laaj imaam laal nga ko léegi nga bàyyi dafa am loo xam dafa am l'islam am na waaye tradition am na bëyu baab te suñu maam la woon bëyu baay ba tey jii loolu dañ cee war a wax te danga koo bàyyi te waruloo ko bàyyi bu dama bëgg nga téye sa loxo boobu laa wax doo ma teree wax tey beneen bi imaam kër gi dafa am lu fi xew ndax dafa lu ñu bokk ñun ñii ki ñuy maye moom ak man maanaam muy mbirum héritage bii bii mbiru héritage bii maanaam mbirum ndono suñu bàyyi dañoo bàyyil kër imaam nga sa xel màcc na ci lii dama bëgg nga xamal ma lan la lan la lislaam wax ci lii ndaxte nag ñu ne bëgg a beddi mhm. arme laay wut mhm. wut naa ko ci fii mhm. awuma ko jox ma ko ma dégg. ci mariage lañ nekk de. yow damaa bëgg nga noppi. sëriñ laajuma la. sa àlluwa sa àlluwa dafa dafa dégg naa la bu baax. question bi ma la tontu ci wàllu yu baay jarul ma ñëwaat bu fekkee da cee bëgg lu la leer demal ci alxuraanul karim sooy xuloo nag xuloo ak yàlla. parce que yàlla. muy tudd condition ñi tekkee sëy boolewu ci yu baay. beneen bi da wax léegi ne daa rafet. tradition la rek mu rafet. lu rafet nag buñ ko mënoo am ci lu rafet ñu jël buñ ko mënta am ci lu rafet nar koo am ci xuloo ka jàppante ñu bañ koo bàyyi teg ko nële beneen bi héritage bii nga dugg muy wàllu miraas yaa ngi laal loo xam ni tas na àdduna <laughs> miraas ci coow lu judd ñu ngénte ko ci coow te yeneen bi neen ci coow lañ koy dëjal <laughs> kuy miraas coow dana ci am dugg naa ci miraas def ko ñu génneel ma paak ni ma dama far séddale boo xam ni yàllaa ni yonent bi dayoo ma ci maa koy séddaleel sama bopp parce que miraas dafa juddu ci coow coow lu rëy grand sëriñ dégg nga saax dum nu rabiyeex bi ñuy wax ci xare Uhud la ñàkke woon bakkanam mais keroog bi mu ñàkkee bakkanam dafa bàyyi woon soxnaam soxnaam ak ñaari doom yu jigéen ak bàyyi tëx bàyyi tëx bi confisqué alal ji yëpp tëdd ci mhm. soxna si ñëw ci yonent bi salaay salaam ni ko sama alal ji nga xam ni moom laa war a am ci sama jëkkër gisuma ko te bàyyi tax bi yóbbu na ko nu ñuy def mu ni ko bu yàlla joxewul compte rendu ci lii du ma la tontu bi yàlla wàcce yusikumullahu fi awlaadikum li zakar mislu xasil unsayni ci la ko yonent boobu mu ñëw mu ni ko ni ngay def mooy anaati ibnatay saad asulu sayni ñaari doomu jigéen yi ñoo moom deux tiers wa ummuhuma asumun seen yaay moo moom un huitième fa ma baqiya fa huwa laka li des yaa ko moom tax siiban coow li jeex yonent bi nag ni coow lu rëy lay doon te képp kuy miiras rendi nañ la ci lu dul paaka loolu nag dama lay xamal ni moom faru ci man faruma ci keneen faru ci séddale yàlla ndax yàlla moo ni yonent bi moo ne nax nu maasharal anbiya la nuuras wa naaw taraknaahu ñu nu yonent yi lu ñu bàyyi sarax la te kuddul yonent dañ lay miiras xalifa généraux muxaddamoo sëriñoo ministre woo député woo ndax ku ñu miiras lu ñu aj sa dossier kër gi nag yéen ñëpp a ko bokk ku ci nekk am na wàll kon nag bu jotee incha allahu taala ku ci nekk la nga moom ca biir kër ga dinañ la wax lii la mu tegu ci condition bi ko yàlla bëggee ak yonent bi bëggee ndax moom mii ragal na yàlla te am na loo xam ni du ko def mukk ci biir miraas imaam conférence nga def yow de ragal nga yàlla waaye kii ragalu yàlla xam lu muy jaamu xaalis lay jàmm bis bu ñuy miraas yow lañuy ñuy ah, baax na man maa ngi dem. papa takk bàyyi ma takku ma maa ngi dem suma la woon de. waaw ah, ah, kenn du leen ko wax yéen a ko téye waaye nag sant rek sunu boroom waaw ndax euh, saaku lépp mënu la baax noonu def gis ca gerte bu ndëb maa ñebe bu ndëb. waaye dañuy boole segg rek teg ne ah kon jërëjëf ñuy dellu di sant. waaw jërë ngeen jëf euh, xaar leen nag ñu joxe teraanga yi. Mm-hmm. Euh, ñu daal ñu soog a def ñaan daal di yeewee lii rafet na si. kilifa nii lay def. kilifa day sàmm njabootam. wajur bu nekk sàmm nga. ëllëg borom bi subhaanahu wa taala dina la laaj. njaboot gi ma la joxoon nan nga ko doon sàmmee. dëgg la kon kullukum raa'in kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi. tabaarakallaahu ko sëñ bi daal yal na yàlla gën koo barkeel rek. dara ngay bari na lool macha allah. yéen a ko macha allah. jekk na lool de. ba mu ne ci biir neex maam de waaye rafet na lool de. macha allah macha allah. macha allah indi waaw indi. bisimilah bisimilah. papa ci kër gi nga ne liggéey. <laughs> Ndeye Ndiaye nan la jox. waaw. jërëjëf Imaam. Imaam mu ñaan rek. rafet na lool waaw ñu def ñaan rek. waaw waaw mën na mën na ñëwee. waaw waaw ñaan grâce ñu jàng Fatiha salaatul Fatiha. bisimilah. rahmaani rahiim. iyyaka na'budu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 jërëjëf jërë ngeen jëf. bal ah ah seen soxnaa ngoog. waaw ah, sunu soxnaa waaw bàyyi gànnaaw. on les on les pas. macha imaam sant nañ leen amiin amiin amiin amiin amiin merci waay jigéen moom taaram mooy sëy rek dëgg la na yàlla barkeel yëngu yëpp nag ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf vraiment kontaan nañu comme nag da nga malaat xam naa ñu ah. may la 24 heures rek ah, ñu ñu ah, d'accord kii sama mooy mooy sama ñetteel ah ndeysaan waaw sama xarit la nag maay doomi ndayam kon ñetti soxna nga am am naa ñeent am nga ñeent daal baa ngi fi tëj nga porte sama yaay mi ngi ci biir waaw waaw tëj naa waaye loolu imaam war nañ cee waxtaan waaw ah, am na waaw ah. waaw buñ ko defagum la ah, gën kon buñ ko sax def remplaçant moom kon baax remplaçant moom kon bàjjen kontaan ngeen xam feebar kon nan la may 24 heures rek waaw 24 heures la waaw xam naa ñu la xaar caserne incha allah 24 la may waaw waaw waaw jërëjëf mm. xool bu fi stressé mooy 24 heures. waaw da da ngay sëy pour dëkk ku lay jël. pour ma dem sëy. non pour liñ la mel. man damay simee ko léegi sëy bi tas de. sey bi tas da nga ji góoro jàmbur ba pare. wala bu fi stressé daal. waaye lii la la yéen taxawaay bi jekk na di macha allah waa Bass toj ngeen fi de yéen seen xeetu sachet lan la li lii mosuma ko gis ah jàpp ngeen ci xew mi macha allah set na sell na yéen daal yal na seen jàmm daal yéen a yéen a mën si événement Bass Events à votre service merci beaucoup c'est ça doo def ni ma teel a sa tëram si bu baax na. maa la ko wax. barke yonent bi bàjjan nay bàyyi. bàjjan national la boobu di laajal sa bàyyi. ana binam. ana binam. léegi dëkk bu ne am na rab. bu xewlee ñëppay fàq ñu xol bi rafet na baax na laabir na ñun ñi de jooy ñu ndëkke benn la ñu am de waaye dafa mel dañu am te lii du sans mérite la waaw rakk nañ fi xale bu ndaw te amul lii mu am kon yàlla sa jàmm yàgg yàlla la yàlla booleeg bi na mii ah yaa xam li nga bëgg a na asamaan a suuf bi jaay Seydina Mouhamed yow da ngaa baax te bis mbégte la looy en jooyal bégeel dëgg neexul noonu na bakkane